waaye féexal sab xol ah, original neexal bu te am na original pur jus de fruits Sénégal ka fay kan gi yegsi fay say facture ngir ñoŋal seen dundin bés bu ne Eric Favre Nation ubbi na ay buntam fii ci Sénégal ak ay large gamme de produits yu wër àdduna wërngal këpp ñu saytu ko ci laboratoire français yi gën a mag moo xam na nga bëgg a yokk sa masse wala dindi sa graisse mbaa sax nga bëgg a yokk sa cawarte yokk sa ngóora ci sa néegu sëy taw leen gaaw consulter suñu site web www.ericfavre-nation.sn wala nga woote ci suñu numéro commercial bi 78 689 33 98 ñoo ngi bi fii ci Dakar Olympique Club ci yoonu Corniche Ouest bi. noonu la demee nag ñu ngi nag ak ki nga xamante ne moom moo di Kandji lom Kandji gars yi naan ko lom social ah borom ETDR sama waa ji maa ngi lay nuyu bu baax di la ziare wat di la ñaanal jàmm waaye aussi di la ndokkal ci bés bi. jërëjëf mon ami Bokar maa ngi lay ziare bu baax di la baalu àq di baalu àq ñuy seetaan à travers li TV di sant yàlla bu baax jullit sangu sang yi Seydina Mohamed gërëm sunu ñaari way jur di ñaanal suñu way jur bu góor suñu borom yërëm ko xar ko àjjana ak bépp booy dawlu waaw di sant rek bu baax a baax ci bis bi nga xamante ne bii moom nga ñu fekk tey sëriñ bi di ci sant di ci santlu di ci santle donc ñun ñu doon ay taalibe aussi tamit ndax dëgg yàlla bu bis bi jotee ñu bëgg cee def li ñu man rek suñu jëmtalaay kàttan di ñaan yàlla ñu ñu ñu ñu ñu mën cee dëppoo ngërëmal sëriñ bi ba ni mu ko bëggee mu defee ko noonu kon ñi ngi ñaan yàlla rek lépp lu ñu ci def yàlla nañ ko nangu ñu fekk ko ay ati at yàlla defal ñu jàmm defal ñu xéwal sàmm ñu njaboot gi te wàcce ci suñu réew mi jàmm bi jaaxi nabil Mustafa yaakaar naa ne contentement ngeen am ñu gis tey mën nañ ne mënul làmb tey la lut en miniature ñoo fi daje ñëw dalal sa kër te ku si nekk rek vraiment ko wax mu ne am na kóllëre am na jàmm am na teraanga vraiment am na respect bu mu dund seen diggante tey ba tax ñu si bëri bàyyi seen dal vraiment ñëw dalal la mu mel ne tey loolu sentiment di si am fierté. waaw loolu contentement la parce que dafa am benn benn genre euh, témoignage yoo xam ne su fekkee ñoom dañ ko porté amoon une illustre personne te may xale ñoom ñu mag ma fuuf ñii man ma papa ñii mag ma nijaay ñii man ma mag ñii ma maase ak ñoom donc loolu ak sant yàlla la dañuy ñaan yàlla rek lépp loo xamante ne bii wax nañ ko ci ñun yàlla bu ñu ci bew yàlla bu ci gis suñ bopp yàlla bu buñ ci rëy beneen bi ci des mooy lu ñu wax ci man rek ci ñoom la nekk li tax mu nekk ci ñoom mooy mag bu ànd gone ba jaral ko mu déplacé wu Dakar ba fii lu ne mën naa nekk mais liñ dafa ëpp fuuf li ma def ndax ay mag lañ yoo xamante ne bii bëri nañ ci bëre làmb révolutionné ko ba ñun ñu xemmeem ko mën see dugg dañ daan toog ci tele wala di déglu Ndiouga ja di ñaan yàlla xam ko man soor Diop Djili Wade Dégol Paala Diop donc bu yàlla dogalee ñu dem ba fekk si leen ci mbir mi ñu rafetal ko nag ndax Mansour Diop bëri naag euh, Ndiouga ja ñeneen ak ñeneen noonu bu ñu mënee dajawaat fii àndandoo ñëw ka fooree kenn du xàmmee ku mag ak ku loolu rafetal la loolu tamit alerte la boo xamante ne bii mbër yu ndaw yi war nañ cee xool di xam ne làmb moment la mais dafay jeex nañ ko rafetal soow mi duggee ko marché buñ ko suukaree ñëpp mën ko naan ndax loolu rek a fi nekk li ci des ay détails la bokkar baax rek moo am solo lu rafet rek moo am solo lu rafet laa doon def ba torox lu rafet laa doon def ba ñu raw ma lu rafet laa doon gis ba ñërëm ma man déggaguma ko àdduna nag marché la loo fi jaay lu baax bu buñ ko peesee rek nga gis département donc ñoom laay sant di leen gërëm yow nag ñu lay beral cant ndax yow ci ñun nga bokk. yow ci man nga bokk ndax nit koo xamante ne bii mun naay def dara jël sama téléphone ne la loo ci xam man boole naa ci sama bopp mais yow boole nga ma sa bopp di nit ku baax avec beaucoup de valeur man li ma neex ci yow mooy ay valeur ndax gis nga valeur dafa am solo y a des valeurs yoo xamante ne moom la ñu inculqué woon. nga dem gisoo papa gisoo yaay war a def dara jékki-jékki ne est ce que war naa koo def man kat waruma def lii ndax sama yaay su ko déggee wala sama papa bu ko déggee wala sama néeg bi ma bokk kenn mosu faa def lu ñaaw. kon man see pas droit à l'erreur loolooy tax olof ne nit day dugg ci ruxam man a kanam di am nag loo xamante ni moom ngay bañ te loolu neex nga ma ci yow mooy xam nga fi nga bokk xam nga sa judd am na loo looy jombale sa bopp te loolu c'est très important mais ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm. mbaax gu raw googunte yaakaar naa ci yow tey boo tegee tey ba gis ay affiches ñu naan Kandji nañ ko dénk CNG bi ndax am nañ ci moom yaakaar loolu bu bu ñu ko gisee lan la la def. waa xam nga dèjà loolu ci man sant yàlla mënu ko paase li tax sant yàlla mënu ko paase mooy man dama ràmpe ci làmb mais ba pare dama sonn ci làmb bu ma dugg ci làmb di tëgg di tëgg ba benn moment ma taxaw def stand by xoolaat ndax nit ku ci nekk lépp looy def war ngaa toog ba mu yàgg nga évaluer xool li ma jóge li ma nekk. fan la ma yóbbu fan la may jëmee lu ci baax ma yokk lu ci bon ma wàññi diggante boobu ma def sànbaay lu ma déggul ci làmb amul man ñaar rek laa déggul ci làmb mooy kanji góor jigéen la wala kanji ëmb la bu dul loolu lu ne dégg naa ko su yàlla dogalaatee nag ma dil si waat boole ko am structure buy tëgg làmb am structure boo xam ne day sponsorisé ay ay ay làmb loolu mooy cant gi ci njëkk gi ci des mooy man maa gën a doon gone ci làmb maa ci gën a xeebu maa ci gën a ñàkk solo su dara amee ñu ne CNG bi kii yam mi ngi bëgg a jeex ñuy publicité ay nit yoo xam ne war nañoo xalaat ne man nañ ko ma jóge gànjaay ànd ak góorandoo yi Mansour Diop Mor mbaay jiili wadd rek affiche yi gis ko comme ni ko nit ñi gisee wallaay lal azim noonu laa ko gisee boo ko gisee noonu nag ak cant la man ay CNG wax dëgg yàlla am taxumaa jóg man làmb laa bëgg dans sa globalité donc mais bu ma bëggee làmb lépp lu koy doxal maa nga ca lu koy jëmale ginnaaw nekkuma ci. man dimanche bu jot ma seetaani. mais su may seetaan damay dagg bii. ma sponsorisé promoteur ma bañ a sponsorisé promoteur du tee ma dagg bii mooy benn beneen bi ci des mooy entreprise bi ma jël di ko dugal ci làmb su doon sponsor laa ci jublu damay exige promoteur. ne ko lii nga may defal lii nga may defal ma def la nangam mais du ma la exiger dara loo def boo ñëwee ma jël sama déem wala sama daxaar jox la parce que làmb dafa am lu ma defal doon waral nag garab. ma war di ko roose ngir làmb màgg ndax ker gi ma jox gisuma ko mu doon ko donc man li ma war mooy lépp lu ma gis luy jëmale làmb kanam dama cay contribuer donc loolu mooy tax man su nit ñi jëlee benn genre distinction boobu bëgg koo porter à mon égard mais loolu ak sant la loolu dama ciy sant yàlla bu baax a baax dañoo xër ba pare ñenn ñi ci ñoom parce que ni ñuy waxee ne kaañ ji lañ bëgg mu jiite am na ñuy wax ne kaañ ñu léegi nag loolu mooy tax nga xam ne àdduna démocratie da caa baax mais dans sa globalité làmb rek moo ciy gagné ndax seen bu demee ba làmbu am ay produits yu mu defar bañ xalaat leen a dénk CNG kon war nañoo gëm ne làmb war naa defaraat président de la république bu nit ñu jël seen bët di ko teg ci ay CNG ak ay nangam nangam làmb nit war na ci mën a génn ñu jox ko réew mi président Diomaye dafa ne exemple bi ci kaso bi la ko la dugg umee koor korite ci pale bi donc nit da ngay am vision boo xam da ngay jàpp ne man mën naa doon lu nekk suba bu mais nag bu ko nit ñi jëlee ci sa din ne la yow lañ bëgg nit dafa am loo moom sa bopp li ci des nag nit ñee ko moom ci yow li nit ñi moom ci yow nag mooy yéene ji muy bu baax muy bu bon donc loolu nag da koy nangul nit ñi te xam ne kenn ku ci nekk libre nga sa choix ne man bookar moo ma doy kii ne bookar doyu ma loolu kese la mais ni ko nit ñi gisee noonu kese laa ko gisee mu lu rafet li ma wax à chaque fois rek Sénégal moom mën nañ sosal nit mën nañ inventé nit lu ne ba mu des mbaax te yaakaar naa ne c'est c'est tey nga wax kànja rek nit wax si yow safaan koo wax kànja mu ne dafa baax lim dund ak man wala lim ma defal te loolu vraiment day wane rek maanaam tey euh, day refléter éducation bi ne si yow day refléter mbaax gi nekkoon si say wéjur vraiment kon yal na yàlla yokk seen leer waaye aussi yàlla yow aussi yàlla na la yàlla gën a taxaw parce que vraiment xam naa ne ñi yaakaar ci yow bëri lool lool lool te yaakaar boobu noonu tey yàlla bu ko yàlla tas yàlla yàlla aussi gën a yokk sutura bi tax tey ñit ñi di la yaakaar kon li ngay tàggatoo rek ci ci ci ci ci ci ci màggal gi ñaan yàlla def ko ay ati ati at nag. yàllaay sant ñëpp rek. di wax ne yàlla ñu ko yàlla def ñu teewe ko ay déwén. képp ku fi ñëw nga yàgg fee ñëw. dem ba am fii daal ñu di la dalal si. lépp lu ci waaye def muy dërëm yàlla na ko suñu borom ful ci barke borom màggal gi. di wax ne rek encore une fois. ñun on ñun man je ne suis pas pour ay poste déedéet man li ma la wax léegi làmb moom ma ñor làmb laa bëgg. mais nag bu ay nit yaakaaree ci yow. ba kii war nañ ko koo mën a jox loola loola seen bëgg-bëgg la. du lu ndaw sax déedéet te loolu ak cant la mais CNG ñëpp xam nañ ne du vot du loo xam ne waa làmb ñoo koy def mais nag jot na waa làmb jël seen ay décision tànn daan ne Bokar Ndour mi moo ñu doy mu jiital ñu suñu làmb te kenn ku ci nekk mandat deux ans nga yam mandat deux ans yi su baaxee dañ lay renouveler su baaxul dañ lay tepp def na keneen fédération sénégalaise de football. club bi ñoom ñooy voté ba d'accord ne Khadim Anta Seck moo ñu doy ñu jox ko muy président fédération te làmb ay privé ñooy jël seen diim ak Dakar di ci dugal di dajale état di ci def dara mais li ci privé yi di def cerce bi état defu kon làmb war nañoo mën a toll foo xam ne def délégation dem ci ministre bi ne leen Boucar Ndour mu ñu doy mu bàyyi leen ñu dox ne leen kat jël leen ñii mais ñi ci des dina am ñu ma leen booleel ndax la état lépp luy dox ci réew mi war na ci am mémise bu ko defee bu ñu ko defee noonu làmb tànn dirigeant bu doxee ñu continuer bu duxut ñu changé loolu kese la mais wëratuñu bàyyi ñu jël nit rek tegal ñu ko fi ñu ne à prendre ou à loolu moom njaboot ak làmbo ñoo ci war a mën a jug ngir loolu maanaam loolu nag li koy maye mooy même bu fekkee intérêt yi duñu benn mais bëgg-bëgg yi war naa mën a doon benn ndax bokkar damaa yàgg di wax na ceebu jën bu ñu ko toggee am na ñooñu dañuy lekk jaxatu ñii duñ ko rek am ñuy lekk ñàmbi ñii duñ ko rek mais buñ dajalee ñëpp ceeb la ñuy añee léegi nag ñàkk bokk intérêt wërta tax yow même buñ tuddoon nit ne war na koo mën a yor nga xool sa bañ ak bañ ak bopp ne waru ko yor nit nag dina yàq ba yàqalaale boppam il faut ñu nangu suñ ñu amee ay individualité yoo xam ne kenn ku ci nekk danga am lu sa morom amut ñuy bàyyi ñu jouer sur les faveurs individuelles loolu c'est très important ci làmb ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax ne sant nañu ñëpp ñi nga xam ne dañoo jël seen choix porté ko ci Kandji pour ne war naa mën a jiite CNG di santaat ñi nga xamante ni noonu la ñu ne non ñoom Kandji doyu leen keneen moo leen doy ndax loolu mooy Sénégal te bu ñu paree làmb rek a ciy gañe jërëjëf moo na lay bëgg kontaan ay waay féexal sab xol ah original neexal pot te am na original pur jus de fruits Sénégal ka fay kan ngi yegsi na fay say facture moo ci gën a gaaw ngir ñoŋal seen dundin bés bu ne Eric Favre Nation ubbi na ay buntam fii ci Sénégal ak ay large gamme de produits yu wër àdduna wërngal këpp ñu saytu ko ci laboratoire français yi gën a mag moo xam da bëgg a yokk sa masse wala dindi sa graisse mbaa sax nga bëgg a yokk sa cawarte yokk sa ngóora ci sa néegu sëy daw leen gaaw consulter suñu site web www point Eric Favre tiret nation point sn wala nga woote ci suñu numéro commercial bi 78 689 33 98 ñoo ngi fii ci Dakar Olympique Club ci yoonu Corniche Ouest bi